docteur Maodo Ndaw Cheikh wax nga dëgg mais xam nga sam papa rahmatullahi alayhi sëriñ Fadilu Ndaw mm-hmm. daf daan wax ni euh, ñaan mu nangu mm-hmm. wala faj mu wér doy na publicité kon docteur Maodo Ndaw ñëwoon ci ñaan yi nga xam ne que euh, ku bëgg mucc ci corona ak lu ni mel ak musiba yi balaa yi li ñuy digal euh, jullit yi waaw mooy si wàllu laab laab mooy foo sangoo ba pare na si sekk sangu faraat ginnaaw loolu mm-hmm. nga yor njàpp foo tool nga yor njàpp foo toll waaw te foo jullee ba pare tamit. Mm-hmm. ngay def 28 salaamun xawlan min rabbi rahim. après chaque prière 28 salaamun xawlan min rabbi rahim. jërul àgg ci am tâche yow mooy foofu rek ngay foofu ngay yem. ak bismillahi rahmaani rahim. bismillahi rahmaani rahim. wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Mm-hmm. fukk ak benn. dama bëgg ñëw nag sa spécialiste tëgg li tax ñu naan Maodo Ndaw da ngay dégg ku xam sax sa liggéey te xamu la ku xam pommade miracle jëm pommade miracle la laa bëgg nga ñëwal ma ci bu baax waxati ñu mooy kan. xam nga karité rek day faj. Mm-hmm. parce que qualité propriété thérapeutique yi si nekk mm-hmm. ci loo xam ne yàlla moo ko si def mm-hmm. kenn xamul nu mu toll quartier kese day faj ñu jël beneen force doole ko si muy ay ayatul quran jël baatin bi nga xam ne sa papa moo ma feeñu jox ma donc loolu barke boobu daal moo si nekk Euh, ngërëm gi nga xam ne suñu waajuru jigéen da koo sàkku si góor gi ba yàlla may ko ko moo tax ñi nga xam ne dañ naan dañ koy imiter ak dañ koy tricage ah. am na loo xam ne neexu la triqué neexu la neexu la wuti gis nga yegg na foo xam ne si pomade bi mm-hmm. nga am lu lay metti mm-hmm. ngay waaj am loolu ay malade ñoo ma ko nett de xaaral ma ñëw jël pomade bi rek yéene ko rek bi dañ di wa góosi kon daal mooy loolu kon pommade bi am na Tektal boutique 77 108 51 51. Tektal boutique mu ngi ci et puis seex li ma la siy wax. am na kër yu bëri yu bëggoon a tas pommade bee ko lijjanti. infection perte blanche. wala mm. wala ay ay bouton sa biir kanam. wala mm. kanam gi di xasen. Mm. da nga koy jël di ko booleeg euh, di ko def ovule sa biir kanam. macha allah da koy faj bu dee góor tamit bu am jafe-jafe si wàllu sëy bu koy naan di diw awra bi. di ko ci diw macha allah moom sa kër dina gën a normal. pommade bi nag dafa am rakkam comme euh, doomu ndey mais ñoom ñaar daanaka benn la sirop bi lu mu di ci njëriñ ñu koy fajo waaw donc lu leen jaaxal si wàllu siti moom waaw dafa am lu bari ci biir voilà constipation estomac ulcère ballonnement diabète hémorroïde prostate douleur corporelle maanaam mettitu yaram faiblesse sexuelle éjaculation précoce maanaam teel a yegg wala ay feebaru der dermatose nii ndox hmm. maanaam voilà ma ngoog sirop bi nag mun a utilisation bi ni muy demee da ngay tàngal ñu tayel ñi nag moo tax ñuy jël pomaat bi lu bëri hmm. ñu sawar ñi seen soxna yi sawaree ñu jàppale leen parce que da ngay tàngal un litre et demi ndox. Mhm. mooy butéelu ndox yi Evian euh, yi. Mhm. yi jar 400. Mhm. ci Sénégal xaw ma Europe lu muy jar ah. def si jar ak xorompole. def ci jar ak xorompole. comme sachet yi ñuy jaay juróom rek. waaw juróom def ko ci. boole ko euh, tàngal ndox bi ba mu tàng. Ah. nga tëj ko. nga kii ko nga tibb fi kudd yi ni añee ba mu fees sotti ko ci tëj ko bàyyi ko ba mu teey nga filtre ko di ko jël kaasu ataay trois fois par jour yoo lekk ba pare am na gan Euh, bi huile huile miracle la bu bees bu Maodo Ndaw defar ku bëgg maase wu wala dàmp te bëggoo ci ami problème ay tuuma di la ci topp ak yépp fexeel ba am bii dugal ko sa biir kër léegi ñi nga xam dañu am problème mu yaram jafe-jafe yi yaram yaram bu yàqu yaxeet xeesalkat yi xeesal ba seen yaram yi yàqu yaxeet ah, ah, borom réew yi yàqu ngoog mm. ñi nga xam ni vraiment dañu am ay douleur chronique ay métit yu yaram yu doy waar mm. ñi nga xam ni euh, dañu am ndoxu cité da leen jàpp ba lakk seen yaram ba teint bi ñu amoon amatuñ ko su ko defee ñooñu ba si sax ñi nga xam dañu am hémorroïde mm. te li ma lay wax ni barke bi ne si garab yi man mm. nee naa la dama doon xalaat pour wàllu der ak surtout wàllu karaw ñi nga xam ne seen karaw yi dafa dagg ba seen bopp yi leel buñ am na ku ko utiliser bopp bi dafa defoon ba leel def ay jib mais fi mu ne nii ma ngay jóg bërki dem boo njaay rek benn malade nee na ma docteur loo ma sa defal huile bee ci gën ma ne ko mais yow lu tax nga wax loolu mm. mu ni ma hémorroïde laa am suma waa kër yëpp jaaxle mm. ma déggoon ni euh, nga ni mën nañoo boole huile bee pommade bi def ko suppositoire ma def ko ci saa si nee na la deñ ci saa si matul sax 24 heures nee na gisatu ko ba nëga ni mu ngi mi ngi noonu macha allah benn jigéen tamit defal na ma témoignage woo na ma nee ma xasenu kanamam mm. fu ne yóbbu na ko fa fu ne yóbbu na ko mais bu mu déggee huile bi Mm. nee na mu jënd ko mu wax ma ko ma ni ko boole ko pommade bi nga def ko ovule dugal ko sa kanam nee na deux jours la ko def affaire bi dem nga xam dañuy am problème teint teint waaw teint bu baax mm. donc ñu koy utiliser macha allah kon amee abo boo bëggee rafet bi ngay diwoo ak pommade bi di ko di mu doon diw ya mën ko boole mais tàngaay bi ko diwoo do non non amul problème mën nga jël sa crème bu léger rek diw bu léger rek nga koy booleeg huile bi ñu ñëwaat nag ci euh, kii euh, au bi boo nuy wax lim wund ci njariñ dëgg-dëgg ku am bopp buy metti wala biir ku tëdd feebar kuy tiit guddi kuy crise mm-hmm. ku nekk en état wala muy matu wala sa yaram diis wala nga mm-hmm. xëy rek santé ni nekko mm-hmm. wala sax nga nga tëju boo ko jëndee mën nga jël xaaj bi nga def ko si Evian bu di nga naan sangu 9 jours continuer di naan di diw saa yoo xëyee laal si sa njaboot aussi lu waay jàmbat comme ni ñu ko waxee rek nga leen si léegi nag ñu ñëw nag ci mitan tegtal. ñëwoon ni Gambie Gambie. kon Gam TGV. TGV nag mooy train ak grande vitesse. mooy train à grande vitesse gis Europe yooyu. Ah, ah, <laughs> mooy mi ngi noonu. su ko defee Gambie. Mhm. dañ ko defar pour rek jàppale mbokk yi nga xam ne dañu am jafe-jafe si seen. wàllu kër moo xam muy góor moo xam moo jigéen. Mhm. déjà dañ ko faj si alxuraan bi au miracle. au au hmm. miracle faiblesse sexuelle bi bu koy jëfandikoo rek sa giiru dund yàlla mën na la dimbali naan sangu 7 jours naan sangu 7 jours le soir bala ngay joteeg soxna si nga naan tuuti diw sa awra ak sa ndig diw ci awra ak ndigam macha allah daal jigéen ñi tamit noonu lañ koy utiliser jigéen tamit utiliser ko noonu su ko defee yàlla da leen di saafaraal loolu daal seen jafe yooyu am na jigéen ñoo xam ni hmm. duñu duñu dinañ ko soxla mais bu ñu sëyee duñu am bànneex am na ñoo xam ne nag seen xel du si nekk te bu ñu hmm. sëyee duñ ko duñ ko am su ko si comme si concerné rek si ñaari pàcc yooyu yàlla boo dañ koy bokk bu waree sëy ku ne diw. ku ne naan. ku ne euh, sangu. ma ngoog sirop miracle euh, faiblesse sexuelle. TGV bi mu nekk bi ëpp naa teg suuf di mu dugalaat fi yoo. sirop miracle bi. mais racines nag. moom lu doy waar la moom it si gaam la bokk ci gaam bi la bokk moom ku ko jënd da koy diviser par deux da koy diviser ren mu ne la koy diviser par deux booy infuser lii euh, sirop bi nga boole ko si ko defee am na ñoo xam ne dañu gàllankooroo si wàllu rab mm-hmm. waaw am àndandoo boo xam ne moo leen di yaakal mm-hmm. lu nu lu nu yaakaar mu tas am ay mm-hmm. jafe-jafe mënuñoo sax labat mu yegg ñoo ñëpp tamit am na lu ñu yàlla baaxee si wàllu ñaan ñoo xam ni fu ñuy jaar ak ñoom yolo yolwaan fa yàlla yàlla saafara leen damay may téléspectateur euh, parce que Tektal TV moom ku koy seetaan il faut ñu lay baaxee dara ñu lay baaxee dara waaw waaw su ko defee rek euh, waaw Ousseynou lii dégg lu baax li muy wax déglu ah. bu baax ma mayee fi tuuti benn secret bu ndaw Fall déglu leen ñi nga xam ne dañoo am jafe-jafe si wàllu bayre par exemple ñi am jafe-jafe bayre waaw ku sangu saabu ba pare ku sangu saabu ba pare jëlal benn siyo ndox nga teg si douche bi nii nga cof tuuti xorom defee nga ne suñu borom nga ne suñu borom yàlla nga ma musal si képp kuy lekk xorom yàlla nga ma musal ci képp kuy lekk xorom képp kuy lekk xorom te nga may ma bayra bi si xorom te nga may la bay ma may ma may ma bayra xorom bayra xorom waaw ah da lay musal ci képp kuy lekk ci xorom ba pare may la bayra xorom ba pare may la bayra xorom ko defee waaw kuy lekk xorom du la mënal dara boo ndox moomu tànk yaa ngi def foo sangoo mu tegu sa yaram mu tëju kuy lekk xaram waaw xorom fi la lay ba waa te di nga saf nit ñi comme ni su xorom safee xam nga xorom moom lu mu demul rek du sot